la dénk leeral ne leen dañ leen di nattal budget wu dix milliards dix milliards yooyu ñu leen nattal Pape Macoro mooy directeur bi peut-être que euh, Cheikh Mamadou moom mooy PCA bi wala daaju euh, daaju euh, ministère bi ku ci nekk ñu xool lañ la natal ci lañ la nattal ñu ne am nga par exemple un an pour doxal ko mais un ba nga ko war a doxal lañ la natal fu lu nekk dërëm bu ne am na fa mu war a dugg léegi boo ko xasee ba euh, un bi weesu ku dekkoon day ñëw ne la ah dañ la dénkoon lañ la dénkoon noo ko doxalee yow nga am possibilité parce que loolu mooy différence ak of of nag bi yow nga am possibilité indi say document jébbal ko vérificateur cour des comptes yi ndax dañ nekk ay sept huit personnes ak seen greffe ak yëpp ñëw ne leen mande de bi euh, lii ma dénkoon samay kayit a ngi nii samay facture a ngi nii samay SMS a ngi nii nii laa ko doxalee léegi vérificateur yi wala cour des comptes saytu yow la nga ko wax ak kayit yi nga ko jox mu xool moom la mu yabal foofu ci ay nit pour ñu xool ko ak la ñu waxoon ni noonu la waroon demee mu def comparaison xam nga boo xoolee ci cour des comptes day dafa lan lay def dana naan recommandation je recommande je recommande nous recommandons nous recommandons. recommandé na ba recommandé ancien ministre de des finances et du budget ne ko del xool booy joxe budget wala booy dagg budget wala booy natt budget na nga koy natte ndax na nga ko natte woon baaxul mais ci biir rapport yooyu euh, moo tax je salue ci euh, dans le programme de du du du président Diomaye fay ci fi muy waxee ci reddition des comptes mu am ñaar yoo xamee ni je pense que c'est important et c'est même euh, dañ ko war a baral fi mu waxee ne nii dinañu réformer Euh, loi euh, bi nga xam ne moom moo créer office national de lutte contre la fraude et la corruption di nag pour que déjà ñu génnee ko ci présidence de la république ba pare jox ko doole bu bu bu ëpp bi mu yore mu ne ci beneen bi dinañu accélérer la mise en place du parquet national financier nga xamee ni boobu le parquet national financier day am prérogative poursuite des infractions relevant de la grande délinquance économique en matière économique et financière ba nga xamee ni gis nga li ngay wax léegi ni cour de comptes euh, ay opportunité des poussées yooyu ba amee parquet national financier boobu mais demal yeneen réew yi France topp nañ fi ay nit ci parquet national parquet financier bu Paris ñëpp xam nañ ko te pourtant kenn mosu fa dem mais yàgg nga dégg ñu naan parquet parce que dañuy woo ay nit ba ci bitim réew. ndax mbirum lan délinquance économique mën a woo sax un ancien président de la république ndax lan mbirum délinquance économique mais de man rapport yi quand j'ai vu xam nga da nga naan cinq il y a plus de 45 parce que dafa am rapport yoo xam ne mooy bi ñu rendre public mais am na yoo xam ne jébbal nañ ko procureur directement depuis mais li lu ñu dé jébbalu procureur procureur lu muy xaar parce que dans les recommandations dina ne ni nangam ak nangam. am na yoo xam ne jébbal nañ ko procureur te ñu ko ci journée de gisoo ko ci rapport yi ñu bind ci cour des comptes parce que dafa am ce qu'on appelle les rapports secrets yoo xam ne day dem directement ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jàpp wala woo wala téye wala yu mel noonu. la suite par rapport ak. la xam nga la xaar man damay jël benn exemple boo xam ne quand lu sax mais j'étais j'étais mais horripilé horrifié ñi nekk ci am diabète. ñu war leen a defal euh, nu ñu koy waxee ci insuffisant rénaux yi. mais ngeen baal ma de mais dëmm weesuwul ngeen baal ma de weesuwul nga ñëw fekk loo xamee ne dañ naan huit mille francs lañ koy jënde mu am ñoo xam dañ koy soxla muy les insuffisants rénaux yow nga fexe taxé état loo jëndee huit mille francs nga dem taxé ko ko njëgu cent cinquante mille francs ci ci loo xamee ne mu ngi jëm ci ay dit ñu feebar mais kooku c'est un crime li tax ñu naan crime financier u économique mais loolu crime weesu loolu ba pare nga bàyyi noonu kenn waxu ci kenn waxu ci ba président ne ni président bi mu toogee léegi matul un mois bi mu waxee ci loolu matul euh, nuñ ko koy weeti trois semaines rapport kenn bindu ko tu trois semaines rapport yi ngay gis nii yëpp ñu flow rapport yi On ne l'a pas écrit en trois semaines. C'est-à-dire que les rapports étaient là, mais comme que le dafa je mets le coude conc bi dañ cee teg conc ba mu nuux ñu téye rapport yi denc ko mais on pa Prodac bi ñuy wax aujourd'hui problème foncier bi ñuy wax problème mu xëyu ndaw ñi bi ñuy wax problème mu dugg ci ay gaal dem Prodac bu doon fonctionner normalement Cheikh Diop du jóge fii dem Italie pour di leen bayal seen i tool wala di leen wittil seen i seen pomme ak i fraise ak i raisin parce que fekk na am na ko fii je vois la RTS qui fait un excellent travail depuis quelques jours bon depuis longtemps sax mais dafa gën a yokku qui font qui ont fait daf nañ benn série fan yi sur la euh, production de de fraises au Sénégal mais Prodac les domaines agricoles communautaire dañ ci waroon am yu bari normalement loolu lañ bind sax ci projet bi loolu la natt ci xaalis jox leen mais gisuñu loolu mieux nga gis ku ñu nattal xaalis pour jox ko pour mu war a lijjanti domaine agricole communautaire am mu bàyyi fa loolu xaalis ba mu dem ci beneen dak te moom jox nañ ko lu mu war a tabaxee moom euh, domaine agricole am mu ngi ci mu ngi ci poosam mu ngi ci ay compte am am ay turu nit ñoo xamee ni ñaata milliards la ñu war a après nee nañ Locafrique war nañ ko fay nangami milliards ci Cour des comptes plus de 3 milliards. ay nit di cëru ay banque ñu naan la banque nangam banque nangam banque nangam booba temps am na ay nit ñoo xam ñu ngi topp ay banque parce que du ñu leen ameel xaalis je prends l'exemple de Bocar Samba Dièye koo xamee ni mais boo ko mais tey euh, bu yàlla yéex mais bu faatoo jàppaleen ni banque yi ak Euh, nu ñu ko nu ko defee moo koy faat. te ba tey mu ngi topp ay place am di. bu toog buntu place am di jaay boo demoon tey buntu place am. gis nga ces ces rapports au début je disais et je président bu mu topp trop yu ni mel ba ay priorité am mu mu tardel ko mais je me rectifie li tax ma ne je me rectifie euh, bu. toppee loolu ba ñu mën a saytu lépp xaalis ba fu mu ne ñu mën ko jëliwaat boobu dina mën yenn ci ay priorité mi mu am mu mën ko ci faj wala mu mën ko ci doxal et je di dit hier ou avant président bu mu bañ ku ko mere bu mu bañ ku ko mere parce que il est le président de tous les sénégalais même ñi ko votelul y a 18 million de sénégalais lu ko ëpp ñi voté matuñu 3 millions ñi ko votel moom deux millions yi peut-être manqué na wala ci la yam mais il est le président de tous les Sénégalais ñi ko bëgg ak ñu ko bañ il est obligé de fair pour tous les Sénégalais et faire pour tous les Sénégalais mooy yi ñu war a leeral ñu leeral ko te bañ a toogati di xaar chaque année la war a génn génn ñi ñu war a mais ñi yaa ngi wax ñu ñu war a poursuivre ñu war a xam nañ seen bopp. démb bi ñu génnee rapport yi démb ñaata conférence de presse ak ay tweet nga gis non non man bokkuma ci man noonu ñu ngi may tudd fii mais du woon man ay tweet gis naa fi ay ministres non non gisoo ñu tudd sama tour euh, je vais prendre benn ministre ou ancien ministre. Malick Ndour na tweet am. waaw moom génne na tweet am nee man de façon euh, personne ne peut dire que j'ai fait ceci euh, euh, am na ñoo xamee ni il a même utilisé quelques mots yoo xamee ni la décence me permet pas de de répéter ça mais dans le la le euh, durant la période 2015 2021 Prodac était logé respectivement. ci Cour des comptes moo ko bind rapport yee ko bind na ci tur yi muy tu yu mu yu mu cité ministre de l'emploi de l'insertion professionnelle et de euh, l'intensification de la main d'œuvre du 1er janvier 2018 euh, au 5 avril sous l'autorité de monsieur Abdoulaye Diop ministère de la jeunesse du 5 avril 2019 au 17 septembre 2022 sous l'autorité euh, de Néné Fatoumata Tall ministère de la jeunesse de l'emploi et de l'entrepreneuriat depuis le 17 septembre 2022 sous l'autorité de Pape Malick Ndour ñooñu nekkoon ci autorité bi yëpp mais am nañ droit laaj leen compte. parce que moom lañ ko jox. c'est-à-dire est-ce que épinglé nañ la wala wu ñu la mais yaa fa nekkoon yaa ko jiite woon tey maa jiite fii. su amee dara lu fi xew. yow yaa responsable. su baaxee yow. mais fii nit woo na fii loo xamee man boobu nekk guma ci kër gi. ci benn situation boo xam ne peut-être c'est antérieur à li mu fi nekk mais j'ai une responsabilité par rapport ak situation boobu. effectivement dinaa xool saytu laaj waa nu mu demee et cetera. et ça me permet man bu dee war nañ ko rectifier ñu rectifier ko. mais c'est pas parce que non j'ai pas été ministre ou j'ai été ministre mais euh, ba ñuy sàcc wala ba ñuy luubal fekkewuma ko. que yow amoon ci responsabilité l'état c'est la continuité la ñu wax. Mm. tey président de la mu ngi nekk di lijjanti loo xam ne ni. mais ci euh, fekk ko fi yoon mu comme nu muy bénéficier wu loo xamee ne moom teg ko fi mais ci nguur gi jóge bi fi jóge na j'ai entendu le ministre euh, Mabouba bu yore agriculture Diagne euh, ñu ne am nañu nangami tracteur nangami nangam ak nangam mais am na loo xamee ne c'était là avant lui ah dañ ko négocier avant lui teg ko mu ñëw peut-être bénéficier wu c'est tout à fait normal mais ah, mais université Ziguinchor boobu. appel d'offre tu peux pas le faire en une semaine gagner lépp ñëw dem jënd lépp. c'est pas possible gis naa. aucun pays au monde ne peut nga def appel d'offre tey. mu pare tey mu pare tey. ñu jox la xaalis bi tey. nga dem jënd matériel bi tey. indi ko tey présenter ko tey c'est pas possible. Hmm. donc lépp lu fi am il faut aussi que sur ce plan-là et c'est bien que les rapports sortent parce que c'est une question de dire la vérité au Sénégalais muy nag muy muy muy Cour de comptes muy IGE parce que ñu ngi xaar tamit yooyu c'est une manière de dire au Sénégalais yéen yéen a yëkkati seen seen xaalis jox ñu parce que yow euh, boo jëndee essence soto am na lu ñu ciy teq mu dugg ci keesu état bi almet ba ngay jën jënd am na lu ñu ciy teq mu dugg ci kees bi keesu état keesu état boobu nag ci lañuy jël ne ni nattal nañu diw pour nangam nattal nañu diw pour nangam ci ay projets yoo xamee ni danga dem assemblée nationale ñu voté ko ay programme yoo xam ne da nga dem assemblée nationale ñu ne lii baax na lii baax na lii baax yow mii njiita réew nga ne man lii may sama programme ñëw ne nii nii laa bëgg doxalee euh, sama programme ministère des finance et du budget lan moo indi ay loi de finance assemblée loi de finance rectificative pour lan na nga jël xaalis boobu yëpp dugal ko ñaari nit wala ñett di ko cëroo di ko séddoo et après on dit non euh, nañ bàyyi mu sedd waruñu bàyyi yenn yi mu sedd mais comme je le dis na continuer ak les organes yi nga xam ne ñoom ñoo koy rek parce que xam nañ ko mais pour gën a dëgëral ñaari structure yooyu nga xamee ni dugal na ko ci programme am ne ni dañ leen di dooleel muy nag ak parquet national financier mais na ñu baral jéego yi l'un n'empêche pas l'autre mën a nekk ci loolu ñu baral jéego yi pour taxawal ko et en même temps li ñu war a poursuivre fële ñu poursuivre ko. jeexal ak yow monsieur Mbaye par rapport lecture bi ngay def par rapport ak ces rapports yi nga xam ni génne